yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan adadi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa mbokki téléspectateurs yi mbokki internautes yi nuyu nañ leen ziar leen di leen ne dal ak jàmm ci xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di baaxee. ci weeru kooru 1444 ginnaaw gàddaay gi di atum 2023 fii ci Touba Mbacké mbokki xibaar yi tey jii dañ koy dooreek nemmeeku gi nga xamante ni euh, sëriñ Ahmadou Badawi euh, moom Cheikh Mor Fadal amal na ko ci euh, jumaay Touba ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassirou xalifa général des Mourides mu yabal ko fi mu ñëw nag doon euh, nemmeeku liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la fi daayira Muxaddamatul Xidma di amal ci biir weeru koor gi sëriñ Ahmadou Badawi bi mu agsee ci euh, jumaa dalal nañ ko mu leeral suñu afiya lépp loo xam ne moo jëm ci liggéey bi waaye it visité mbooleem yokk yi li nga xam ne moom la ñuy waajal ci ndog yi ba ci boulangerie bi nga xam ne def nañ ko ci euh, biir jumaa ji ngir mu leen di lakkal mburu ak yeneen yi nga xam ne dañ ko yittewoo ci ndog yi gina bi am na kàddu yoo xam ne taataan nañ ko ci moom mu leeralaat tank yi nga xam ne moom la yëkkati ci turu Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbàkke moom Serigne Bassirou ñu an teewlu ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi yëkkati sunuy kàddu di ko tàmbalee ci ab nuyoo ak ub ziar jëmee ko ci a Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan sunu borom bàyyil na ko fi te may ko wér ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi lépp mu mën koo liggéey ni mu ko bëggee te naandu ko ak moom di am mbégte mu rëy loo xam ne xamuñu luñ ko mën a tudde ci ñëw fii tey ci jumaa ji tedd ji nga xam ne mooy yaakaar yaakaari murid yi mooy jubluwaayu murid yi fii nga xam ne fii la Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu nekk ci kanam njabootam gu tedd gi ne fi muy dëkk boo xam ne it bépp murit sa yaakaar fii la ne àdduna boo sañoon itam waxtu woo wujjee sa borom ñu indi la jébbal ko fii ci dëkk bu tedd bu sell bii sëriñ bi yabal nu ci weeru tedd yii ñu ñëw indi ak nuyoom ak cantam ak ñaanam jëmee ko ci daaira muqaddimatul xidma xaw ma muqaddima laay wax xaw ma muqaddama muqaddamatul xidma kon weer wu tedd bii nit ñi di ko joxe ngeen di ci jëf-jëf ju tol nii loolu alhamdulilah rabbil alamin sëriñ bi nee na xolam sedd na ci guy xam la ne nam ko daan defe noonu la ko yéene defe te xam nañ ne defe na ko ni ndax moom bu xalaatee rek sunu borom mottali xalaatam bu yéenee sunu borom mottali yéeneem kon xolam ak xelam ak yëppam mi ngi fii ci jumaa ji tey ci taxaw taxaw ci taxawaay bii di ko def na mu ko daan defee ñu koy ñaanal sunu borom bàyyi ko fi te may ko wér te dolli ko kattan dolli ko kattan ndax ak nekkam fi day dal nam xel ku ne xam ne fii mu toll di julli si jumaa di ànd ak ñun di julli loola bind la boo xam ne inna fi dalika la ibra laallakum tatafakkaruun laallakum taaqaluun yaa ulil albaab loolu mënees na ko jàng ci jataay bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha dana ko ñëw ci àjjuma ji ak macha allah fi mu toll waaye mën nañ cee déggee itam afala akoona abdan shakura lu mu am lislaam la kon lu mu yëkkati lislaam rek waaye lu mu jàngale ci lislaam doyul waaye gis ngeen tàkkusaan gi itam ni mu koy defee fii ci kër gu mag gi ñëw toog ñu jàng xasida yu tedd yi xasida bi nga xam ne boo koy déglu doo bëgg mu noppi te lépp a ngi ci biir kon daal sëriñ bi nee na xolam xolam sedd na nee na xelam dal na it rëtéex la ko wax xelam dal na rëtéex ci doxin wii nga xam ne moom la liggéeyam sëriñ bi di doxee kon nag ñu ñaanal ko mu yàgg fi te wér waaye nu fàttali ko la mu waxoon ne bu mu laal suuf bu mu laal suufam joojee yéen de tawu ngeen waaye nag nañ gën a taw bu baax a baax na kenn ku nekk jàpp ci ku ci noonu itam jàpp ne loxo mënu caa ñàkk bu njëkk yëkkatee sunu loxo nag sëriñ bay gàttandu ak xam waaye lii moom kawe na nga njort tuyaaba ji ci nekkit yàlla rek xam nu mu toll ak borom liggéey bi nga xam ne moom ngeen koy defal waaye ku fi ñëw da nga yéemu da nga dolli ko waat pas da nga jaajuwaat it ngir ñëm ko ànd ak yéen kon daal liggéey la boo xam ne képp koo xam ne doon nga ci tàbbal sa loxo na ko yokk boo ko mënee waaye bu ko kenn tàbbali di ko bàyyi moom képp koo xam ne it xëy na sa jëf daawu ci dugg si na nga fexe ba mu ciy ñëw ndax kat jëf ju nangu ju nangu la ba noppi rawatina fii ñu koy defee rawatina waxtu bii nu koy defee rawatina nii nu koy defee jar na sax nit ñëw ndogu si fi ànd ak yéen ngir tëbb ci barke boobu waaye ngir yokk leen ci tuyaaba ji ak sooñ soññi leen ci jëf ju rafet ji ngeen ko def kon sëriñ baa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax waaw leen góor di leen wax waaw leen góor ndax moom nee na jàmbaar dees koy kañ baatu kañ boobu ci moom lañ ko déggee nee na jàmbaar des koy kañ kon lii ngeen di def liggéey bu am solo la ñu ngi leen di kañ ci turu sëriñ bi di leen sant ci turam di leen gërëm di leen ñaanal leen wax rek idal amaam incha allah ñaan sëriñ bi gën ñoo gàttandu ak i taw fee xam gën a yokk kàttan gi ba lépp àgg ni ñu ko bëgg àggee wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jeneen kilifa goo xam ne it moom it ñëwoon na fii ci jumaay Tuubaa ju mag ji muy Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Souhaïbou àndoon ak délégation bu am solo moom it mu ñëwoon doon nemmeeku liggéey bu am solo bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma moom lañ amal ci biir weeru koor gi fii ci jumaay Tuubaa bi mu nag jot na nemmeeku wala visiter mbooleem li nga xam ne moom moo jëm ci liggéey bi muy yokk yi. ni nga xam ne noonu la ñuy waajalee ndog yi noonu it la nemmeekoo li nga xam ne moom moo di waxtaan wi nga xam ne moom lañ fi amal bés bu yàlla sàkk ginnaaw tàkkusaan teewee na ko moom sëriñ Amsatou Mbacke moom sëriñ Souhaïbou ginnaaw bi nag am na kàddu yoo xam ne bàyyeekoon na ci ñenn ñi nga xam ne ñooy euh, ñoom la àndaloon ci délégation bi ñu ànd teewlu. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziare bu baax. di rafetlu rek euh, liggéey bi nga xam ne daara mu xadd Muxaddamatul Xidma euh, liggéey nañ ko ci euh, saa su nekk sax ñu nekk ci waaye rawatina ci weeru koor gi ànd nañu sëriñ bi xoolandoo liggéey bi yëpp lii nag mu nekk loo xam ni bunt la boo xam ne yaakaar naa àdduna sépp war nañ cee jàngat ndax weeru koor li ci nekk ci aw yu rawatina waxtu dog ñu berndeel la ci façon bernde yëpp nag berndeel la ci ruux berndeel la ci jëmm ji ak ay waxtaan gunge la ko waxtaan yoo xam ni dalay dolli kon lii nekk na lu am solo lool sëriñ bi it eh, yëg na ko te it sëriñ Touba lii doog nga taxoon nag mu sañ ci dëkkam bi waaw bernde nit ñi ci jàmm yàlla bernde leen ci ruux te loolu ku ñëw fii tey da ko gis lii daal lu am solo la sëriñ bi jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatulah waa kay sëñ bi ñu ngi siyaar bu baax tey siyaar mbokk yëpp ak ñeent fekk di sant bu baax a baax di sant sëñ Tuubaa ci liggéey bi di wax ne li moom lu am am am solo lool ndax sëñ bi ñëwee saytu na bërëb bi xool liggéey bi it am na sant it ci liñ fi fekk ci ñiñ fi fekk jàmbaar gi ñu doon ak taxawaay bi nga xam ne moom lañ ci am waaw ñu ñi nga xam ne yéen la yàlla dogal ñu ànd ak moom it am nañ ci mbegte bu baax a baax a baax di sant di ko rafet lu baax lii dañuy dolli dañuy dolli ñu ñëpp dañuy dolli ci suñu murit dañuy dolli ci taalibe bu baax a baax a baax gën a ñoŋal liggéeyub suñ tubaab bi lépp ci liy ñoŋal liggéeyub suñ bi la kon nag ñu ngi ciy sant bu baax ciy tuub kat bisimilah asalaamaaleykum ñoo ngi leen di siyaar bu baax di leen màggal di leen jox seen wàcc wàccuwaay di ñaan suñu kàddu yi mu fekk leen ci jàmm di santaat yàlla buur bi bu baax di santaat Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul di santaat tamit suñu jëwrin suñu sëriñ suñu Xamsatu Mbàkke son mu ñu àndal ñëw ci liggéey bi waaye suñu ñëw ci bis bi tey ànd fekk sëñ Amsa euh, dañ ciy santaat suñ Tuubaa baax a baax daal luy wane ne gis nañu euh, ni ñuy dundale weeru koor ci jumaa ji gis nañu tamit xéewal yi ni ñu ko taxawoo nga xam ne kuréel gi nga xam ne mooy Muxaddamaatul Xidma ñu ngi liggéeyal suñ tubaa liggéey bu am solo lool te ko ni lool képp daa dafa doy dafa doy firnde am na ci ak sant gu yaatu daal gu day bokk ci li ngay li ñuy wax naa daal suñ Tuubaa amut morom. mbokk yi mu nekkoon nemmeeku gi nga xam ne moom la Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne bi doon amal fii ci jumaay ju mag ji ci biir weeru koor gi. mbokk yi dañuy wéyale ba léegi ci kilifa yi nga xam ne ñu ngi ñëw fii ci uh, jumaa ji ànd ak daayira Muxaddamatul Xidma ci liggéey bu am solo bi jëm ci biir uh, weeru koor gi bokk na ci uh, professeur Daouda Niang nekk fajkat bu mag boo xamante ni partenaire la ci daayira Muxaddamatul ma ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne mi amal ci mboolem événement yi nga xam ne ñu ngi koy organiser ci taxaw leen ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum paj gi moom nag ñëwoon ci jumaay Tuubaa ju mag yi doon nemmeeku liggéey bu ni mel ginnaaw bu mu booleem li nga xamante ni moo jëm ci liggéey liggéeyub koor gi am na kàddu yoo xam ne taataan nañ ko ci moom ñu ànd teewlu ko. bisimilah alhamdulilahi rabil aalamiina bu ñu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad salaa salaam. dañuy sant bu baax a baax a baax sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke bi ñu mayaatee ñu ñëwaat fii ci jumaam ji tedd ji doge fi koor di ko sant bu baax a baax a baax a baax di sant ki nga xam ne moo ko fi toogal muy sëñ Mountakha Mbacke Bassirou yàlla may ko gudd fan gu ànd ak mu fekkee lépp di santit ñi nga xam ne tey ñoo yore daayira xidmatul xidma bi nga xam ne sëñ Afia Bousso moo ko jiite gis ngeen sama côté ñi fi nekk mooy sëñ Ablaye Bousso loolu jagleel la jagleel weesuwul nga am bernde boo xam ne ci weeru koor nga lañ ñëw ñu tànn la ci ci tànneef yi ne la kaay dog fii loolu amul njëkk amul prix bu doon lu mën a jënd la ni dina ko jënd waaye loolu mënuñu ko jënd donc damay jàpp ne rek euh, feddali kóllëre rek bi nga xam ne moo dox moo dox sama diggante waa kër gi loolu ma koy sante bu baax a baax a baax a baax sëñ Touba euh, ndax li ma fi gis tey ànd seeg samay samay mbokk mu jóge dakaar ñëw gis nañ ne taw féex la déglu nañ fi conférence boo xam ne euh, sëñ Cheikhouna euh, Mbacké Wudul Abdul Wudut moo ko doon def mu ci waxtaan jàngalu jàngat sëñ Touba ak jàngatu àdduna ak jàngalatu lépp lu nga xam ne taw féex la ak diine la. muy conférence bu ama amam solo boo xam ne damay ñaan ñu nekk koo xam ne daal yàlla mayu la chance nga fekke ko nga xool ko ci euh, télé internet yi nga seetaan ko te di wax ne daal li ma fi gis moom ci ci conférence boobu rek wane na Touba ñàkk fee ñëw ci weeru koor gi ah euh, du lu gën daal. mbokki waxtaan yi amal ci jumaa jumaay Touba ju mag ji ci biir weeru koor gi ginnaaw takusaan gu ne am na délégation yu bëri yoo xam ne. dañ koy teewe waaye yeneen yoo xamante ni dañ ci invité bokk na ci IEF bu Mbacké di inspection de l'enseignement de la formation bu Mbacké ay kilifa yu bëree bëri ñëwoon teewe waxtaan woowu le ñoom nag ñu rafetluwaat bu baax a baax a baax waxtaan yi nga xam ne ñu koy amal ci jumaay Tuubaa ji ci biir weeru koor gi ci thème am solo yi nga xam ne ñoo ko ciy tànn waaye it sant daayira Muxaddamatul ma ci seenub taxawaay ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci euh, Touba Mbacké ñu ànd teewlu seen i kàddu. taw feexam ci Maulana Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul tey ñaan Cheikh Mouhamadul Muntaha suñu borom yàggal ko fi wéral ko kattanal ko ba yim naal ci lislaam yëpp mu àggale ko ci gën gee rafet anam. ginnaaw loolu tamit ni ngi ko waxee ci turu inspection de l'éducation et de la formation ñu ngi béral cant di ko jëme ci muhaddimatul xitma euh, maa ngi ñëw teewal yef ànd ak délégation bi nga gis nii ñëpp. Euh, muy ay eh, gis nga inspecteur Thiam sama collègue nekk nii am na ay professeur ay directeur d'école ak ñi nga xamante ni ñu ngi liggéey ci biir inspection bi ñun ñëpp ñu ànd ngir ñëw jëmmal mbir mi ak wane mbégte muñ mbégte ci ñu woo ñu ci lu mel nii ndax nag ku ñu woo jumaay Touba war nga sawar ci wuy si waaye ñu woola tamit nga yëngu ci xam-xam ñu woo ci jataayu xam-xam woo ci weeru koor Muxaddamatul ma nag liñ def Euh, man dama jàpp ni jàngale la jàngale la ndax ñëpp xam nañ ni euh, jàkka jumaa néegub yàlla la te dañ ko war a dundal dundal gi mooy di ca julli waxtu juróom yi waaye nag mu nekk bërëbub xam-xam ba pare muy jouer tamit rôle social bu mat sëkk kon yéen jumaa ji ngeen yor di ko doxal ñëpp xam nañ ni 24 heures sur 24 jumaa ji day dund nga xamante ne nekkul rek foo ñuy julli tëj ko dem waaye dañuy julli waaye ku fi ñëw tam man fee jànge sa diine man fi jàng ci àdduna waaye tamit mu bërëb boo xamante ne bërëbu social la loolu di lu am solo ñu ciy bég thème bi ngeen biñ doon déglu léegi tamit képp kuy borom xam-xam rek duggoon fi ak ku ñëwoon di jàng rek jële nga fi loo xamante ni njariñ la loo xamante ni yóbbal la boo mën a dimbali ko sa dunduk yépp ndax sëñ Samba mi doon waxtaan abordé na thème yu am solo ci dunduk sëriñ bi wax ci jamono bi mu nekkandee ndaw te kon ndaw ñi wax na ñoom di ndaw terewul a am détermination terewul a am yëg-yëg terewul a am pas-pas ndax booba yitte ju mat sëkk la am laxasaayu daanaka jamono bi muy wax loolu kenn toppagu ko ñu koy woo ci teraangay àdduna ndax xaaloo li yarkan la waxtaane ñu woo ko mu mel ni kuñ ndaw luñ ne woon kaay ñu def la ministre wala ñu def la ministre conseiller wala ñu def la chargé de mission nga mën a am teraanga yëpp am ay passeport diplomatique fu la neex dem lu tekki lu rëy ci ci ci àdduna mu wan ginnaaw loola lépp jublu boromam. kooku kon bind la bu mat sëkk boo xamante ne kuy ndaw war nga koo jël muy ab yóbbal boo xamante ne ñun jël nañ ko ngir mën ko yóbbaale lam ca teg bañ ko ne demal mu gàntal tamit dafa wax moom jubluwaayam ndax ku wan ginnaaw mbir nekk am nga loo jublu daf ni wan naa ginnaaw wunti wóor yooyu waaye nag lan laa jublu mooy xam-xam ak jëfe ko xam-xam ak diine loolu tamit di bind boo xamante ni ñun jëlee nañ ko fi ndax nit ki lépp lum dëgmal lu dul diine ak xam eh, day mel ni loola boo moytuwul neen lay doon ci ñun kon ñun ay yarkat lañ ay jàngalekat lañ waaye ñëw nañ jàng yellante nag li ñu fi roote ñu man ko yóbbu man ko sottiwaat ndax système éducatif moom benn la ñun ñëpp ab sénégalais la ñuy former bu ñenn jaaree ci wet gi di former kenn ñeneen jaar fële di forme bu jee am na ku ci soo sooxele rek boo moytul dina yàq liggéeyub kase des mbokk yi bokk na ci xibaar yi soxna yi nga xam ne saa su ne ñoom ñooy seetal bërëb bi nga xam ne moom moo di jumaay Tuubaa ji ci diirub ayu bés bi di taxawaay bu am solo boo xam ne ñoom it ñu ngi koy amal ñoom nag ñoo ñëwoon defoon délégation ñëw ànd ak daayira Muxaddamatul Xidma ndogo si fii fii ci euh, jumaay Tuubaa ju mag ji ci ndogo yi nga xam ne bés bi yàlla sàkk ñu ngi koy waajal ñoom nag mu nekkoon délégation bu takk boo xamante ni ñëwoon nañ waaye rafetluwaat bu baax a baax euh, taxawaayub euh, daayira bi di Muxaddamatul Xidma ak lëkkaloo gi nga xam ne am na ci seenu diggante waaye seen taxawaay jëm ci euh, jumaa ji ak ni nga xam ne noonu lañ farloo ci saytu gi mbokk yi ñu wëy euh, dem ca Mbàkke Bawal ca maison d'arrêt de correction bi ci euh, xéwal li nga xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma yóbbu woon nañ ko fa ci biir weeru koor gi don ko jàppande détenu yi fa nekk muy prisonniers yi loole nag ki nga xam ne moom moo jiite bërëb ba di directrice bi sant na ci bu baax a baax daayira Moukhaddamatoul Khidma ci seenub taxawaay waaye nag sant leen ci li nga xam ne mooy farlu gi da nga xam ne at mu jot euh, ñu def ko indil fa ñi nga xam ne ñoom ñoo di détenu yi ay xéewal ñu ànd teewlu ay kàddoom. du gudd parce que si biir bureau bi président wax na lépp euh, waa prison bi dañu nekk ñoo xam ne ay dañu bokk ci njabootu seeni tuuba parce que ñu ngi ci localité bi léegi bu ñu gisee daayra bu mel ni ñëw indi lii nii nii mel na ni yéen fàttewoo leen leen si seeni dund. parce que prison population en miniature la ñëpp dañ fi nekk seeni doom seeni rakk seeni mag ak seeni jarbaat donc bu ngeen leen xalaatee ci lu mel nii dañ leen di remercier bu baax a baax a baax parce que xam nañ ne yéen am ngeen idée réinsertion bi ñu def par rapport ak ñi nekk ci biir te réinsertion weesuwul lu dul di xamal nit ki à tout moment war na génn ci société bi te su génnee day dellu si njabootam boobu nga xam ne mooy ñii nii nii doon ñëw indi xiwal yi ni di leen ñaanal yàlla fulal leen lii nii ngeen def tey parce que dañu ne weeru koor lépp loo def yàlla daf la koy multiplier si tuyaaba. mbokk yi ci mag bu Mbàkke la ñuy desandi ba léegi ci xewal yooyu nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma yóbbu na ko fa ci biir weeru koor gi doon ko jébbal détenu yi loole nag ki nga xam ne moo di président tribunal bu Mbacké di Cheikh Ñaan rafetlu na ko lool ci taxawaay bi waaye bàyyi xel gi nga xam ne bàyyi nañ ko xel ñi nga xam ne ñoom lañ fa jotatee te nga xam ne nattu euh, dal na ci seenub kaw loole nag sant na ci bu baax a baax daayira Muxaddamatul Xidma ñu ànd teelu kàddu président tribunal bu Mbacké di Cheikh Ñaan. xidma bi nekk Touba di liggéey sañ sëñ Tuubaa ci jumaa ji ak lépp lu aju ci jumaa ji ak armée li comme ni ko ñi ma ñi ma jiitu waxee muy bu am solo bu rëy taxawaay ci yoonu murit donc euh, tey ñu ñëw fii euh, doon seet si ñi fi nekk maanaam détenu yi ñu fii euh, di leen fàttaliku ci koor gi ni ko ñoom ñëpp waxee rek initiative bu rëy la boo xam ne nii rëy na rafetlu nañ ko te suñuy kilifa ci wàllu administration ndax maison d'arrêt mi ngi bokk ci ministère de la justice donc ñoom ñëpp rafetlu nañ lii te it bëgg nañ initiative yu mel nii sëñ Abdou bu Bousso wax na ko léegi euh, bu ñun bu ñu sañoon ñëpp roy ci ñoom donc lii buñ ko defee tey it ñoom am nañ yéene continuer ak ñun ci liggéey bu mel ni waaye dañuy woowaat nag bon volonté yëpp képp koo xam daal lu baax moo la ñor. dimbali moo la ñor social moo la ñor donc ñun tàllal lañ la loxo ngir ñu mën a gën a jàpp li ñu fi nekk man lu ci ëpp ñu fi nekk samay loxo la jaar ci wàllu tribunal waaye au loolu ñun ñëpp ay doomu aadama lañ ay mbokk lañ ay wax nañ ko léegi ay rakk ki baat ki lépp fi nekk donc man également moo tax suñ ma invité ci lu mel nii dama ci sawar jiitu ci. mbokk yi ñu ànd euh, découvrir euh, régie bi nga xam ne moom lañ installé fii ci euh, jumaay Tuubaa ju mag ji bu GMT TV ak MK TV mu nekk régie bu mag boo xamante ni mooy diffuser mboolem yi bàyyeekoo fii ci jumaa ji moo xam ci biir weeru koor gi la ak yeneen événement yi nga xam ne mu fi am muy màggal Tuubaa gàmmu gi ak yeneen yi ngi fi organisé mu nekk régie boo xamante ni mboolem matuwaay dañ koy jël saa su ne ngir mën di diffuser en temps réel mboolem activité yooyu waaye ci biir weeru koor gi waxtaan yi nga xam ne ñoom ñoo fi am naafile yi ba ci julli juróom yi nga xam ne bés bu yàlla sàkk dañ koy diffuse en direct loolee lépp nag ginnaaw nemmeek googu am na kàddu yoo xam ne taataan nañ ko ci sëriñ Jili mi nga xam ne Serigne Jili Bousso mi yor liggéey bu ni mel ñu ànd teew li kàddoom. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu waaw ah, kay jërëjëf Serigne Fallou ah, risi risi bi nga xam ne moo nekk fii ci jumaay Touba nag buñ ko dee wax mooy ngir gën a mën a seytuwaat liggéey bi ndax dañoo seetlu woon ne. bu njëkk kenn ku ne dafa daa indi ay eh, indi cameraam indi ay bagaasam ngir mën a jàllale yi nga xam ne moo fi am nag ci eh, la ci la ni ci lañ ci lañ defare récit yi nga xam ne moo fi nekk ci jumaa ji ngir mën a jàllale eh, julli juróom yi ak ajjuma yi ngir jàllale waxtaan yi nga xam ne moo fi am rawatina bu dee koor wala muy màggal walla muy gàmmu wala bépp xew-xew boo xam ne rek am na fii ci jumaa ji xam nga ni jumaa ji lépp ñëpp la lu ne ku ne nekk fi kon euh, ngir gën a mën a yaatal liggéey bi tax na mu Muxaddamatul Xidma euh, toppatoo euh, récit bi nga xam ne moom la ñuy gis nii ngir képp koo xam ne ñëw na fi rek moo xam bépp organe la moo xam télévision la moo xam site la Euh, bu ñëwee euh, ab liggéeyam gën a mën a yemb euh, rawatina xam nga ne léegi jamono weesu na kenn ku ne di indi sa sa sa say say sa sa say bagage ndax bu njëkk télévision bu télévision bu mosaan di ñëw rek day indi risim indi ay caméram jël ay espace yu dul jeex ngir ngir mën a jàllale julli yi fi xew wala ajjuma yi wala màggal wala xedde ma loolu nag yàlla def na ci tawféex ba euh, télévision bi fa mu nekk lay fa mu nekk lay nekk rek toog ñu jox ko benn lien boo xam ne neutre lay doon euh, réaliser ko julli gi jox ko ko kon loolu ak jàppandal gu baax a baax la rawatina nag weeru koor bi nga xam ne ci lañ nekk euh, waxtaan yi nga xam ne moo fi am moo xam waxtaan yi la moo xam naafila yi la moo xam dog yi nga xam ne moo fi am yooyu yëpp nag moom la réaliser euh, jox ko organes yi nga xam ne moom la moo ñoo ñoo yittewoo liggéey boobu kon daal rési daal lu amam solo la waaye ay taxawaay la yoo xam ne day tax euh, liggéeyu communication bi nga xam ne moo am ci jumaa ji gën a mën a tege ci yoon waaye nag ñu gën ko mën a saytu ba du am benn ay fay yoo xam ne dana am ci liggéey boobu euh, liggéey liggéey boobu nag bu ko récit bi defaree dana jàll ci euh, gene bi di GMT TV wala MK TV te daara mu xadamatul xidma di ko saytu. association des écrivains de la Mouridia di kuréel goo xam ne dafa ëmb ay bindkat yoo xam ne dañoo bokk ci yoonu Mouride ñoom nag euh, ki nga xam ne moom moo di Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Mountakha teewaleen fii ci Touba Mbacke amoon na délégation boo xamante ni ñëwoon nañ fii ci jumaay Touba ju mag ji. ci daayira Muxaddamatul Xidma ci liggéey bi nga xam ne moom lañu amal ci weeru koor gi rawatina waxtaan yi nga xam ne ñu ngi ko fi amal lépp jëm ci wàllum xam-xam ak solos thème yi nga xam ne moom lañ fi euh, développé tam euh, yitteel mboolem ñi nga xam ne dañuy gëstu loolee nag euh, ñoom ñu rafetlu ko bu baax a baax am na sax ay téere yu bëree bëri yoo xam ne jébbal nañ ko daayira Muxaddamatul Xidma di ay téere yoo xam ne dafa jëm ci wàllum gëstu ci xam-xam loolu nekk lu am solo loo xamante ni ginnaaw bi am na kàddu yoo xam ne yëkkati nañ ko ginnaaw ne meek googu ñaan teewlu ko. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mboolem ku ñuy topp ci àdduna si yëpp ci réseaux sociaux yi ci bis bu tedd bii nga xam ne ak barab bu tedd bii ñu ne di leen siyaar di ñaanal sëñ mun Mountakha mu yàgg fi yàgg gu wàll ak ba naa lim naa la maamam ji mu yeggale yëpp. ba teg ci yeneen tañ ànd kook moom tey nag euh, dañoo am xéwal gu mag a mag gu toll nii euh, mu xadamatul xidma nga xam ne ñoom lañ dénk liggéey jumaa ji ak yeneen i liggéey ci dëkk bi dalal association des écrivains de la Mouridia nga xam ne kuréel la goo xam ne bi mu sosoo yàggul waaye li ko tax a jóg mooy bi mu gisee ni jamono dafa dox ba sëriñ bi ñu gis ñëpp gisandoo ni mënatul yem rek ci réew mi mu cosaanoo wala xeet bi mu cosaanoo àddina sépp ko war a jëriñoo mu wër àddina sépp wër ci làng yëpp wër ci làkk yëpp ñu gis loolu gis tam ni kenn ku nekk am nga yéeney bind te ku nekk lu nekk ñu ngi koy bind ñu xalaat ni nañ nañ jéem a nos euh, ak kuréel goo xam ne gii dañ ci nos suñ bopp boole ci suñ bopp nga xam ne léegi dañ mën a tasaare euh, njàngaleem sëñ bi ak njëriñal sëñ bi ci làkk yu wuute danañ mën a tam taxawu képp koo xam ne kii da bëgg a bind ci sëñ bi am nga yéeney bind ci sëñ bi ñu joxoñ la fooy dem seeti référence yu wér loolu moo waral asociation des écrivains de la Mouridiya bi nga xam ne am nañ xalaat bi nag rek ñu daal ñëw Touba euh, xamal ko sëñ Cheikh Mbacke mii nga xam ne ku ko xam xam ne ci mbind ak gëstu ak jàng ak jàngale lay xëy ci lay gont ci lay rañaan biñ ko ko waxee moom itam mu lu ko lool daal ñu yóbbu ci sëñ bi ci saasi bi ñu yóbbu ci sëñ ñu leeral ko sëñ bi sëñ bi tam ko ku ne xam na ko ku xam na ko ci njàng ak ci xam-xam ak ci gëstu mu daal di ñu ci jox ndigal daal di ñu ñaanal ñu daal di dem ci loolu nag lañu ñu doxee diir bu gàtt rek yàlla boole ñu ak mu Muxaddamatul Xidma mi jaaree ko ci sëñ Mamadou euh, Bachir mu sëñ Abdou Khader Muxaddamatul Xidma ci màggal gii weesu rek ñuy fekk ñuy def ab exposition fii ci jumaa ji ñu yaatal ñu fi yaatal yéeme woo xam ne bi wane nañ suñuy téere def ay waxtaan ba nga xam ne foofa la ànd bi tàmbalee tey jii nag lii ñu fi dajalee nga xam ne dañoo yëkkati ay ay téere ab lim ci ay téere di leen ko jox ñu mën ko dugal seen makkatu makkatub dañuy dañuy dañuy dañuy wéel ànd googu rek di di di fas yéene nag ànd googu di law di yaatu lépp loo xam ne daal dafa jëm ci li ñuy def ñun nga xam ne mooy gëstu euh, ak bind ci lakk yu wuute lépp luñ ci soxlaa ñoom jekk nañ pour pour àll ko ñoom ci liggéey bi lépp lu ñu woo ci fànn gu mën ci liggéey bi itam jàppale ñu la jàppale seen i mbokki taalibe yi daal lañ la ñoo xam ne yi yàlla fii la ñu féetale ci wàllu mbind mbind ak ak siiwal pare nañ ko pour ànd ko génn. mbokk yi doon teewlu ñu tëjee xibaaru weeru koor gi fii ci Touba Mbacké ci résidence Khadim Rasoul ci njàng mi nga xam ne bés bi yàlla sàkk ñu ko fay amal euh, ci teewaay Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général di di murid ànd koog daara Hizbut Tarqiyyah ak mbooleem njabootu Serigne Touba gi nga xam ne saa su ne ñu ngi koy teewee mu nekk njàng moo am solo moo xam ne ginnaaw takusaan gu nekk Serigne bi dana ko teewee ba njàng ma mat mu ñaan daal di yeeweeku ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm ci ànd ngeen àndoon ak ñun euh, dig leen daje incha allah ci yeneen xibaar yoo xam ne day bàyyi ko fii ci Touba Mbacké ci biir weeru koor gi fii ci grande mosquée bi wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa adadi